jili ba tey dañuy kontaan bu baax a baax gis ngeen li nga xamante ni mooy seen émission makkan ki ma ki invité du kenn ku dul Mbathio Ndiaye Mbathio borom coppati Mbathio borom photographe photo ma borom remontada alors Mbathio sama émission bi nag ku ma ñëw dinaa la laaj jomb jomb sunu makkan bu njëkk bi ñëwoon nañ ci waaye wax waxaat du bari wax. te nag comme ni ma lay waxee da bokk ci réew mi les dañ laa bëgg nit ñi dañ laa fonk dañ laa am fuñ la teg bokk na ci tey li nga xamante ni ñu ngi koy gis nit ki di ko wane. ci ecran bi ça n'a rien ak lu muy tund tey su ma la doon laaj mbaacoo lan ak lan lay jombale boppam lan nga may li may njëkk jombale sama bopp li ma mës bañ ci àdduna mooy di wax loo xam ne doo ko def. d'accord waaw mhm. su ma bëggee ñëw ci mot bi de dafay xaw métti. Mhm. mot bi dafa xaw a métti mais di wax loo xam ne daal defoo ko. Mhm. man moom jombale naa ko sama bopp nañ ko rafetal waaw. nañ ko rafetal man du ma jaar sax ci mot bi vrai <laughs> mais daal jombale naa sama bopp daal euh, di wax lu nga xam ne duma ko def. lépp lu nga xam ne wax naa ko muy kàddu rek. kàddu bu jógee sama gémmiñ dem ci tey caat mm-hmm. bëgg naa tey fu ma gis caat rek dinaa siggi mm-hmm. mais toog ci euh, mbooloo dig nit dara mm-hmm. nit toog di raxaar defoo ko jombale naa ko sama bopp mooy bu njëkk mooy bu njëkk jombale naa tamit nit ñi di ma gis foo xam ne waruñu ma faa gis. jombale naa aussi loo xam ne nii malgré que ku ci nekk yaa ngi wax lu la saf mee man xam naa man baa ci fi may teg sama tànk daal jombale naa sama bopp lu bari daal. Mm-hmm. vraiment mais bi ma ci gën a euh, accentué yow daal mooy. Mm-hmm. wax loo xam ne doo ko te muy lu bari bari. ci milieu ci mim réew. Mm-hmm. ak surtout suñu te caméra bi ma jàkkaar loolu xam ne dafa bëri ci mim réew. te am na ñoo xam ne buñ ma seetaanee xam naa sa dinañ ñoom laay waxal nañu bàyyi digaate. digaate baaxul nit ki loo ko mënta defal bu ko dikk bul fekk ku sonn toog soxla benn saaku ceeb nga ne ko dinaa la ko may te mayool ko mu lay woo doo ko jël mhm. wala nga fekk nit ku toog nga ne ko suba naa la may cent mille mhm. mu woo doo ko jël nañ bàyyi yooyu mhm. yooyu rafetul man duma wax sama bopp parce que man moom am naa sama matu bopp ñaanuma kenn ku ma may ma jël waaye nañ bàyyi digaate dama ko fekkee fekkeewaat ko waaw te loolu nag loo xool li ci gën a bari kilifa yi ñoo koy def. te loo rafetul. d'accord kilifa du wax loo xam ne day dëñ kilifa da nga war di tenir sa kàddu. Mhm. loo wax tey xanaa yàlla jëlee la fi mooy tax mu dëñ. pour man kilifa noonu ngay mel. bokk na ci li ñu nawee. bokk nit muy wax dëgg. macha allah kon nañu di rafetal daal. macha allah muy lu am solo da ngaa wax loo xamante ni tey ku ci sukkandiku rek mën naa ne yàlla dina defar say mbir fii ak fi ñu jëm. Mhm. parce que sa kàddu yaakaar dafa fort. tas yaakaar baaxul caat. Mhm. tas yaakaar baaxul. Mhm. te dangay toog des fois nit dig di daat dara. lu ci mel ne tabaski bi wala leneen da toog gis nit ku ñu dig muy woo kooku toog Bathio man de ki may woo nangu maa jël ma ne ko bàyyi ko yàlla am na lépp. Mm-hmm. yemal ci li nga am loolu dafa rafetul. Mm-hmm. te tas yaakaar baaxul yaakaar dafa foor te nit ki toog rek daal ne diw de bàyyi naa ko yàlla. Mm-hmm. bàyyi naa la ak yàlla dafa foor te nit ñi xamuñu loolu. dafa foor. macha allah mu nekk lu am solo message la bu am solo bu mu bàyyee te xam le ne moom lay jombale boppam euh, lii euh, wax dëgg yàlla képp koo xamante ne wax naa ko ci sukkandiku rek sa lépp mën naa baax ñu ñëwaat ci leneen Bathio dañoo gis ne actuellement la nouvelle génération. bës da leen a jaral lu ne bës dafa am fu leen toll. Mm-hmm. bës dafa am loo xamante ni tey maanaam dañoo jàpp ne mooy priorité. Mm-hmm. boo amoon conseil booy jël jëmale ko ci ñooñu nga xamante ni tey jàpp nañ ne yow sans bës ñoom sax du ñu exister lan nga leen di wax. waaw man damay wax ne euh, dañoo xamul rek mm-hmm. ndax bu ñu xamoon ne siiw du jàmmi borom déjà siiw boo ko defee rek métti na kon donc jaru nga ci dolli dara ku ci mel ni man damay jël exemple sama bopp. man buzz dafa ma sonal te man bëgguma buzz. man dañuy wax ci man te pourtant bëgguma ñu wax ci man mais yàlla moo ko dogal ci man du lu may takk du lu may naan du lu may sangu. damay toog fii sama biir saal bi wala ma toog léegi ak caat waxtaan ak moom. gis léegi gis man ak yow léegi ci internet bi ñu soppi ñu wax ci. wala nga toog foo xam ne yëgoo ñu waxal la kon donc buzz jarul ñu koy uti buzz yàlla moo koy def ci nit. Mm. tey bu yàlla ne tey mbaaju kenn du wax ci moom kenn du wax ci moom mais bu yàlla ne mbaaju heure bu ñu xëyee dañuy wax ci moom loolu day am ilaa yow mi diini kenn mënu ci dara kon buzz jarul wuti artiste sax surtout bu gëm sa bopp doo ut buzz buzz moo lay ut si buzz moo lay fekk si des fois ñu waxal la loo xam ne da nga koy yëgee ñu ko ñëpp yëgee des fois médecin day xëy na ma mbaajo xawma lan internet ko yëguma ko ah. parce que man du may seetaan internet du ma lire commentaire kon kuy dem di commentaire wala ngay wax mbaacu li kii man yëguma loolu man daal pour man bës moom yàlla moo koy def ci nit ki mu ñëwaale ak moom. Mm-hmm. loo war a judduwaale la. Mm-hmm. mais pour man bës nekkul loo xam ne danga ko war a uti parce que déjà nekk artiste rek dafa metti mais boo nekkee artiste bëgg ci boole lu ñëw sa loxoo nga ca lu ñëw nga ne ci cuuc càpp bu yàggee da ngay soof. waa allah waaw te man pour man artiste waruloo soof nit ñi da ngaa war tout le temps. di neex nit ñi. Mm-hmm. ci ñi la bëgg surtout. Mm-hmm. di sonn ci yow di xeex di xuloo ndax yow. Mm-hmm. tout le temps dañ lay fekk ci dëgg yoonu dëgg nag boo ci nekkee moom bu ragal wéet. tout le temps bëri na ay xaaxaa bëri na ay kii mu toogal rek jàpp sa ñàmb mm-hmm. noonu la muy lu am solo loo xamante ni wax dëgg yàlla mag naa bàyyi xel comme ni nga xamante ni mu yëkkati na ko wax ko mi nga xam la ne moom bëggut bës bës a ko topp sama papa sama papa nag day wax toujours ne gàccay penc ci lenn ko fay yóbbu yow lenn moo fay yóbbu nit cela veut dire euh, borom xam-xam bu bëgg a feeñ wala nit ko bëgg a feeñ te yàlla feeñalu ko ko day sonn Mm-hmm. comme ni nga wax tout kon nag mu nekk lu mat a bàyyi xel bu baaxee jii li dañuy dem dikkaat daal di ñëw ci li nga xamante ni mooy message à la nation bi nga xamante ni Mbathio war nañu ko indil à tout alors de retour ci seen émission makkaan euh, bii nag euh, bokk ci rubrique yi nga xamante ni mooy ndar képp émission bi en réalité Mbathio message à la nation bokk na ci cri de cœur wala tey message comme ni ñu ko waxee boo xamante ni bëgg nga ko yëkkati jëmale ko ci sa askan tey bu ñu la ko doon laaj ci fan nga koy accentuer incha allah. waaw caat loolu duma ko accentuer wul dul ci li ma la waxoon rek bi ñu dajee makkaan. Mhm. ñu bàyyi soxorante bi bàyyi iñaanante bi xam ne lépp yàlla yàlla lu mu dogal ci jaam bi kenn mënu ci dara tey caata ngi ne di dem yàlla moo koy def ci jaam eh, te def na ko ci yow kon nag ñu nangul la ko mm-hmm. eh, pour man ñu bàyyi soxorante bi iñaanante bi dugg bi génn bi wax bi loolu yëpp pour man day leen nit mm-hmm. pour man nit heure boo xëyee war ngaa nekk ci lu nga xam ne dalay avancer mm-hmm. loo xam ne dangay dimbali sa famille dimbali si ñi nga xam ne dañu laa proche dimbali si ñi nga xam ne dañu laa jege yaakaar ci yow lool ak ñi nga xam ne xamuñu la ak ñi nga xam dañ la xam te jegewuñu la tey damay jot message yu bari mbaatu dama bëgg lii dama bëgg lii pour man ñooñu nag leen war a euh, sa occupation dafa war a dem ci ñoom ka nga nekk di lijjanti ay détails pour man détail baaxul mm-hmm. sénégalais dafa bëgg détail ma baax mm-hmm. mais détail baaxul pour man ku ci nekk soo xëyee rek war ngaa mën a dem ci li nga xam ne nii boo ci nekkee suba ba ngoon boo tëddee dina la jariñ pour man loolu la mm-hmm. di wax euh, comme ni ma ko waxee woon sànq Covid 19 bi ma ci lancé waat appel nañu continuer di takk suñuy masque. Mm. def suñuy distance comme ni ñu ko waxee oto yi comme ni ñu leen ko waxee nañ leen ko defee noonu. Mm. ku dugg ci oto takkal sa masque chauffeur yi tamit dëgg la métti na mais benn étape la rek léegi mu jeex. macha allah ñu continuer di wax di def li leen xam ne loolu la leen euh, seen seen ministre bi sant Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. Euh, di wax daal nañ ñëpp nekk ci jàmm. Mhm. Sénégal man suma sañoon ñëpp ci jàmm la ñu nekk ak salaam. Mhm. bëgguma xiiroo bëgguma ngaayoo nit nag caat sénégalais moo mel noonu. da ngay ànd ak nit ba dara dul dara. ngeen ñëw ba fenn fii gis naa loolu man ci yenn artiste wala ci milieu bi ak même bu nekkul artiste. nga dem ba yàlla xaw laa yëkkati tuut. nga bàyyi ko nga àndaloon ginnaaw bëgguma loolu. d'accord message rek bu may joxe. Mm. Euh, tey xam naa tey ku ku toog seetaan ma boo ci gisee sa bopp nga jël. Mm. mais man daal xam naa ne ñi ma àndaloon boobu may bàcc ba tey man ñooñu laa àndal ba tey. Mm. te ñoom laa fas yéenee àndal. ndax gor du wor nit ku baax du wor. surtout maa jullit. loo wax rek war nga cee mën a delluwaat. te dama bëgg dama dama bëgg man nit ki su may ànd ak yow soo ma xoolee rek ma xool la. donc nañu bàyyi soxorante. Mm-hmm. ñaanante. audio yi ñuy génne nañ ko arrêté. Mm-hmm. génne audio jàmbur baaxul. Mm-hmm. nit ki loo wax ak yow pour ma man ak yow caar li ñu wax man ak yow. ñun la war a na ñun la war a concerné. pour man seetaan statut jàmbur copier yóbbante. baaxul. seetaan sénat bu jàmbur pour copier yóbbante pour ma nit ki soo ko bëggul rek war nga ko mën a bañ a seetaan. ba waroo ko mën a jël ay yëfam di ko jox nit. seetaan bu yàggee day nuru bëgg. bëgg boo xam ne yaa ngi def ay yëf ci suuf. comprendre ma daal man daal dama bëgg daal ñëpp nekk ci jàmm cas bi daal bu ma ko traité daal bëgg naa ñëpp nekk ci jàmm. <laughs> nee na ba mu ko traité bëgg na ñëpp nekk ci jàmm. man dèjà laa ci jël comme leçon. cela veut dire wërsëg jarul ngay dummooyu say mbokk. statut social jarul ngay yu say mbokk. ak noo mënti mel ci àddina jarul ngay wan ginnaaw ñi nga àndaloon. Mhm. te message la bu am solo nekk carence totale jamono ji ci réew mi. Mhm. te kenn ku ne war nga koo bàyyi xel. Mhm. cas bi bañ ko traité loolu mooy cas bi. nag <laughs> loolu rek la du leneen. <laughs> lenn laay mujjee. Mm-hmm. Euh, muy Mbathio dafa bëgg yaayam. Euh, bari na ci ñoo xamante ni approché naa leen te fekkewoo ko ñu ne Mbathio buy sonn lenn lu ci bëri yaayam moo tax. te it loolu doom ju ne doom ju baax ju ne bu bëggee raw sax war na fonk yaayam tey bu ñu amee benn message bu ñu Mbathio di may ci lu ko yaayam waxoon ba lu ko waay wax dootu ko metteeti ban message lay doon. waaye dama ciy jël benn message sama yaay tout le temps daf ma naan mbaaco man na nga mun ma nit ki su la bañee su la bëggee jëlal teg sa wet même su même su la bañee sax nga xam ne diw dafa la bañ sooy lekk woo ko booy naan woo ko soo amee loo ko may may ko. donte xam nga ne kii bëgguma donte xam nga ne kii tey ku ma jox ku ko joxoon paaka mu rey ma mais yow tout le temps mbaaco nekkal ci li nga xam ne rek moom nga war a nekk mooy loo am jox ko. ngeen bokk di lekk di bokk di naan. Mm-hmm. loo ko yéene jox ko du la wàññi dara. doo te xam nga ne sax nit ki dalaa bañ. Mm-hmm. Mm-hmm. message boobu di bu foor te nag maanaam maqaama moo koy may nit. yombul euh, tey loolu nga mën ko assurer. kontaan naa man. yàlla na yàlla defal jàmm sama mag ji lenn rek moo ma neex ci moom su ma ko woowee damay jël wax dëgg yàlla yëgul star yëgul yëgul boppam yàlla na la yàlla taxaw yoon bi nga nekk yàlla na ci sa sëriñ bi jàppale te may la boroom kër bu baax <laughs> dafa ñëw tey pour sabotage. dama yow ngeen sama xarit. li ma la ñu dama de. den doog a kon lañ teg émission bi. dama lay dóor de. <laughs> nañ tëj bala nga waat <laughs> yoo xam nga doo doo ndax da nga ñëw bu def affaire sabotage xaw ma daal nu ma demee noonu. ma la saboté. léegi léegi ci li wax ci sama sëriñ bi may profité di nuyu nag waa Tiwaawan bu baax a baax. di nuyu sama maam sama xarit. Mm. waaw sama soppee mm. ñun ñi ma jàkkaarloog Serigne Babacar si ba keroog dara maan alal loo ko mba moo ne woon su ma rusul woon sama bàyyi ku ma woo ci nataal ma wuyu la koo koy sama wéeruwaay man mooy sama sëriñ man su ma jàkkaarloog moom sama ko xee sama soxla da koy faj immédiatement démb ci guddi laa toog fii ci sama saal bi ñaan ko sama soxla jàkkaarloog moom te da ba ma xëyee dama ko gis barke salaat faate kafu ma de mm-hmm. barke Seydina Muhammad bi ma yaakaar barke laa ilaaha illallah démb ci guddi laa ko ñaan ma xëy tey suba mu am mm-hmm. kon xam nga kon kii góor gi yàlla dafa am. ñu ay kilifa lañ duñ ay nit. merci voilà buñ la koy wax lu leer dama am photo bu réyal bu nga xam ne mu ngi ne jàkkaarloo moom su ma jaaxlee rek. Mm. may jàkkaarloo moom su ma kontaanee damay jàkkaarloo moom lépp lu mënti am damay jàkkaarloo moom di nuyu waa kër Màlle. Mm. Euh, Tiwaawan di ah, nuyu sama waa kër Papa ñi ñu dalaloon. ñi ñu dalaloon ci gàmmu gi ñu ci gàmmu gi ndeysaan ñu baax. ñu ngi leen waa États-Unis ñoom ñëpp suma ma limee juum. Atlanta Atlanta. Uh-huh. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit waa uh, Londres ñi nga xam ne ndeysaan dañu bëgg ma ñëwaat fa. Uh-huh. mais Covid 19 bi nuyu nag caat uh, maa ngi doon fàtte. Uh-huh. dama bëggoon lancer benn message boo xam ne nii mooy étranger yi. ñi nga xam ne ñu ngi Europe. comme da nga tudd waa États-Unis tudd waa Angleterre. Italie Espagne euh, euh, foo mënti dem. foo mënti dem ci partout dans le monde daal su ma limee damay juum. da gis ne Covid 19 ñoom ñëpp la impacté. ñëpp du Sénégal kese de. parce que bu jeexee Sénégal te jeexul foofu tam ñun duñ fa mën a dem te suñuy soppe ñoo fi nekk suñu am di jàmm. te da dem gis leen ni ñuy liggéeyee ak ni ñuy sonnee ci seen liggéey di teel a xëy di guddee wàcc Euh, nga xam ne ñii ay jàmbaar lañ. donc yal na yàlla teggi lépp ma leen di wax di courage. yàlla baax na. famille yi ñu am fii ñu comprendre leen. yi ñu am fii ñu parce que tey boo ci toogee tey ak benn mère bu doy waar. Mm-hmm. boo toogee benn mois yónnee wu ko mu bëgg la indil ay xat-xat ak ay jafe-jafe. loolu baaxul. Mm-hmm. àdduna boo ci nekkee da ngay wax ne. Euh, man kat sama doom a ngi fee def ma daan yónnee chaque jour mais bii yoon de mm-hmm. xaw na taggatémbe nga comprendre ko ci loolu ni ko sama mag amaroo di wax lekk ku def gis ku deful doo gis dara mm-hmm. ñoom ñi fa nekk mm-hmm. dañuy nekk di liggéey daan seen doole kenn taxawaaluwut partout dans le monde fu ne laa leen di fekk mais dañuy liggéey da ngay gis nañuy liggéey sonn tey bu wàcc waree jouer soirée sax dañuy liggéey ba wàcc doog a ñëw ñëw ci soirée bi mm-hmm. may nag sama xarit moom tamit day jàpp sama combat di jàpp sama liggéey moom mu tuddee sax la reine du mbalax Omaro mu Cheikh Béthio waaw ah, borom 3STV sama xarit da lay yëkkati da lay yëkkati nit ku baax la moom tamit nit ku baax la ku ñàkk ki mhm. nit ku baax la mhm. nit ku ñàkk kiiñaan la nit ku nga xam ne ni wax dëgg yàlla bu la bu la tegee da lay yëkkati mm-hmm. moom tegul kenn pour daaneel ko ci mm-hmm. suuf mm-hmm. vraiment di remercier sama fansi yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy bëgg chaque jour di jot mbaaco di leen di leen jaajëfal di leen wax ne gis naa lépp maa ngi gis lépp kontaan naa ci ñoom euh, suma ma limee juum fans club bi nekk Koungheul ñoom yàgg nañu ak man bi Ndeye Aram si jiite ñoom ñëpp kontaan naa ci ñoom mhm. di profité tam ci occasion bi di jaale suñu papa mhm. suñu xarit suñu goro parce sama rakk bu jigéen fa lay sëy muy Massamba Seck mi nga xam ne ni député la ba ni muy gaañoo ni député la woon euh, moo nekkoon suñu fierté Koungheul mu jógee fi bu yàggul ma profité di ko jaale waa Koungheul yëpp di ko jaale sama rakk Fatmata di ko jaale sama ñoom yaay di ko jaale ñoom Musli Seck ñoom euh, Jili mm-hmm. di ko jaale cekkeen gi yëpp mais di profité aussi di jaale waa Kaolack macha ndax ñoom tamit fan yi li dal seen kaw dafa métti tàng na trop waa Kaolack yëpp maa leen di jaale Medina Baye ñoom mm-hmm. ñëpp maa leen di jaale mm-hmm. eh, wax dëgg yàlla ku sañoon ñun ñëpp a fiy des. mais yàlla moom bu soxlaa ñëpp ñàkk te ñun ñëppay dem. xanaa mu yéex. Mm-hmm. ñu ñaan mu yéex mais ñëppay dem te ku ci nekk xalaatal na juróom-ñaari mètre per carré moo lay topp. donc na lépp rafet. na lépp rafet. Mm-hmm. caat man daal man maa fi jaaroon kontaan naa nuyu naa ñëpp nuyu waa Koungheul nag sama fief maa la gën a kontaan. <laughs> plaisir laay am toujours di jàkkaarloog moom Mbathio Ndiaye la woon ci seen émission makkaan tey nag ma amoon plaisir ñëw fi waxtaan bi yaakaaroon naa ne kontaan ngeen may jéggaluwaat bu baax nag ndax man damaa doy waat temps mm. yi. donc may kontaanee ñëpp di leen remercier. am na ko ne ci suuf rek di la jàmbo. <laughs> non non kenn jàmbo kenn jàmbo genre bisu ngoone gi dañu doy waar dañ lay jàmbo waaw <laughs> ko tooñ. genre bisu gi genre Kero Ba Ndiaye gi genre Pape Cheikh Diallo gi. dañ lay jàmbo naan la caa del waxee nii xam naa la.